ñuy wéyal seen émission euh, jàmbaar sa waar wa jàmbaar sa waar wa nag ba léegi ñu togg kii nga xam ne mën mooy euh, Ndeye kumba Ndeye Coumba nekk jàmbaar nekk jigéen gis nañ euh, gis nañ taxawaay bi mu am si association am Taxawu Ñu Wéradi waaye dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ah, daal di présenté wu daal di ñuy wax ma mooy kan Ndeye Coumba ñu ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay fay di la gërëm ngi la Ndeye Coumba si bokk ci association And Taxawu Ñu Wéradi bi suñu président Pape Niang di jiite. je suis la trésorière adjointe euh, Gaye mooy trésorier bi ñu ñu ñëwoon fii na si diwaan yi Bargny euh, ànd ak monsieur le maire macha allah dindi jàppale malades mentaux yi franchement bu ko maire yëpp defoon dëgg yàlla euh, du ma ni balaa mentale dina jaar mais dina am tuuti tan ñu dañ fi ñëw nag jàppale malades mentaux song leen jox leen ñu lekk delloo leen fan leen jëlee bu seen sago nag. suñu kër suñu kër bii ñuy tabax nekk jam ñaayu pare su ko defee bu ñu gisati benn malade mental ci mbedd mi loolu daal mooy suñu mbir bi di ñaan appel à tous les maires du Sénégal à tous les directeurs généraux ñu jàppale ni dimbali ñu ñu jàppale ñu ñu tabax suñu suñu maison bi ndax malade mental yi mën fa nekk mën fa dallu ndey ku ma ñu gis ne euh, jigéen nga waaye jigéen bu am pas-pas waaye jigéen bi nga xam ne tamit euh, xam na li yàlla wax si jaamu yàlla si euh, jaamam yi ndey kumba en tant que jigéen lan moo la motiver lan moo la pousse ba nga dugg si association am taxaw ñu wér gi ah soxna si seetaan benn descente sama xol tooy rek ma ne lii moom foog ma bokk sama première descente maa ko defee woon Kaolack macha allah te ku si nekk sa mbokk wala sa xarit wala sa dëkkandoo di nga romb chaque jour malade mental si mbedd mi loolu moo ñu poussé ko ñu liggéeyal yàlla rek a tax di jàppale ko ñu ñu bokk ci parce que yàlla defal leen li tax mel ni ñun tamit yàlla defal ñu lox lu tax ñu mel ni ku si nekk nag yàlla moo xam nag sa ëllëg naka lay demee am na ñu ñuy faj sax bu ñu wér macha allah. bëgg bëgg jàppale malade mental parce que amuñu wéeruwaay ku ci nekk koo ci faj gën a wéer am ñoo xam ne boo faj fajee ñi dépression moo leen jàpp ñi xëy na rab la ñi liggéey la mais koo ci koo tout suivi ku ci nekk di nga wéer moo tax ñu jàppale malade mental pour ñu nekk delluwaat ci seen njaboot macha allah daal moo ñu tax a jóg daal def te yàlla tax rek moo ñu tax a jóg def te yàlla tax euh, moo leen tax a jóg moo tax a jóg waa association ànd taxaw ñu wéradi euh, di leen fàttali ne kii toogal euh, mooy Ndeye Kumba Ndeye Kumba di adjoint trésorier bu association ànd taxaw ñu wéradi Ndeye Kumba dañ lay laaj bu fekkee am nga borom kër wala bu fekkee say waa kër maanaam lii nga bokk si association bi est-ce que causé wul benn benn benn discorde benn benn problème sa diggante say waa kër wala bu fekkee am nga borom kër sa diggante sa borom kër. non amaguma borom kër suma diggante si waa kër comprendre nañ xam nañ ma lii dama ko bëgg te macha allah ñoo ma ci jàppale mais ni ci am borom kër sax dañuy bàyyi seen kër yi ñëw di liggéey si pare fii am nañ borom kër dañuy bàyyi seen kër bàyyi seen jabar bàyyi seen njaboot jàppale ñu de comme la ko waxee wala du def te yàlla tax yàlla moo ñu tax a jóg fay mu yàlla nañu soxla moo tax ñu koy def avec passion avec amour. loolu rek a tax macha allah. Ndeye Comba lan ngay lancé jigéen ñi comme yow jeunes yi comme yow wala autorité yi wala ñi nga xam ne yàlla may na leen fi bopp may leen fi baat may leen may leen am-am ah lan nga leen di lancé pour ñu ñëw jàpp si euh, lii nga xam ne mooy association Ànd Taxawu ñu Wér. waaw comme ni ko président waxee Pape Cheikh rek ñun utul ñu. ñu bare wutuñu bës lépp ñu soxla autorité yi dañu lox ñu jàppale ñu tabaxale malade mental yi seeni seeni kër ñu nekk fa ñu leen di jàppale

malade mental ñu tax a ñu fu malade mental soxla ak n'importe ak n'importe quelle heure ñu ñuy génn jàppale leen rek mo ñu tax a xamna dinañ xawa génn gaam parce que gis nañ sen président di eh, bay pamnya bay pamnya gis nañ wala deg nañ ne auto moko mbeuk ba paré ndaw mu nek si ben état eh, bu critique eh, ci li nga xam Mansour loolu la wax sank opéré won nañ tank bi ba féré ko ba mu delu Mbour waaye gis nañ ne dellu si na Dakar rek ndax dañu gis tank bi dafa agra bi lan la lan lan rek ngay wax kooku nga xam ne mbëkk na ko pare daw. waaw ki ko mbëkk moom xam naa ne du ma ne ragal mais ñàkk xam àddina rek mais bu doon presse bu doon bu doon euh, Pape Cheikh Niang wallaay xam naa ne ak xolam bu rafet bu taxawoon da koy baal. xam naa ni bu du am conscience tànk nam ñoo ko def ci réseaux sociaux Pape Niang moom du jàppal kenn mer. xamul sax luy met taf ree la xam na daanaka am na ñu ko fi mag am na ñu fi mag mais ñëpp la ñëpp ñëpp ñëpp la def morom mënoon na toog rek jellu si waat rek balu ko ak ndax lii àdduna du dara mi ngi nii gisoo ñu ñu wéetalee am na manquement bu bu nekk ci ñun mais sant yàlla xëy na loolu la yàlla dogal yan yàlla yëkkati ba ba ci ay activité am parce que malade mental yi dañ ko soxla yàlla nañ ko yàlla yëkkati ba mu dellu si ay euh, activité am loolu la euh, soxna Ndeye Comba wax kon xam naa dañ lay bàyyi rek nga dellu si liggéey bi ndax xam naa liggéey bi mu ngi lay xaar fële jërëjëf soxna